Jean maa leen di fay bu baax a baax. ñu toog deux ans yoo xam ne lii di appel Limamou Laye bi amul at à cause du coronavirus noo dundee retour bi. waaw retour bi tabarkàlla euh, fàttali leen loo xamante ne ay at ci ginnaaw defuñu ko munoon nekk appel boo xamante ne tabarkàlla heure bu amaan xol yi féex heure bu amaan jàmm ñu wane ni Sénégal jàmm am na fi waaye appel bi heure bu amaan rek euh, maanaam euh, gaa yu baax yi daje fii ci dëkk maam Limamou Laye bi xol yi gën a féex waaw. yaa ngi sant yaa ngi organisation bi waaw waaw maa xawoon na yor organisation bi daal <laughs> organisation bi ak xawoon na yor daal. waaw mais genre temps yii maanaam peut-être gisaguñ la maanaam ci yenn maison de yu mag yi suñu maison de Sénégal jàpp na fi mu toll nii mooy lii di Marodi wala lii di Event Pro ndax boolewoo ci 5 TV Sénégal ndax boolewoo ci 5 TV Sénégal. mais comme ni ma ko na ci kaw. waaw am na ci mais nag. Eh, dëgg la de man maa ngi sant 5 TV fan yii maa ngi maa ngi fa dafa def ay bagages yu sew sewaan yoo xamante ne yu mënta ñàkk la. waaye nag bon nekk ñooñu tamit nekkul boo nekkul ci ñoom rek yoo de Sénégal dafa bëri maison de production waaw Sénégal bëri maison de production am na xamante ne comme sama genre ñu ngi xool si di nga xamante si duñ ndaw lañ nga woo leen ne la saa kaay def ci dara nga def bi si bi jóg nga dem ci keneen am na ñoo xam ne dina la ñuy liggéey waaw. mais de production yi mag ba léegi dafa mel ni am na am na ñu am na ñu si contacté wala. non non gisuma contact kenn gisuma contact kenn fa neex yàlla. waaw il faut mu ñëw fii te wax lii de actualité gis ngeen tamit sa fait un an ngeen ngi problème kii di Adji Sarr ak Ousmane Sonko ba léegi euh, Sénégal yi kenn xamagul fu ñu jëm noo gisee loolu. fu jëm comme lan. ba léegi justice amatul. justice amu ci quoi ah mais nañ def justice fekkee moo ko moo ko mën a ji mais nag Sénégalais yi ñu justice bi de. Sénégalais ah je sais man gis naa daal bu ñu woowee Sonko rek euh, gaa yi jóg waaw xam naa nag tamit euh, dafa jege dafa jege askan bi trop daal. ba jege askan bi trop moo tax bu ñu ko laalee rek affaire yi jóg mais nag bon mu ngi noonu daal waaw mu ngi noonu daal waaw xamagun man man man du ma juge waaw. situa situation situation réew mi jaxasoo rek nga laaj ma waaye rek bon Ousmane Sonko Adji Sarr moo def deful loolu daal man wax dëgg man du ma daal man mënu ma si juge waaw. mais ndax gouvernement bi fu mu toll nii est-ce que bëggoo maanaam fu mu toll nii gouvernement bi daal daal di xippi xelu Séné bëtu Sénégalais yi ba ñu mën a xam mu leer suñu euh, kan moo tooñ si ñoom ñaar. tooñ am na ci. waaw moom gouvernement est-ce que gouvernement moo moo mooy liggéey loolu. gouvernement mooy justice bi moom a séparer. justice de ah, ah, moom su waay justice bi affaire bi mu seen ay loxo ñoom ñooy xool ba xam dañ koy topp wala dañ koy bañ topp mu ngi noonu de man sama yoon neew je suis pas un juge man ma kenn dugal. jërëjëf Jean waaye maa lay fay bu baax a baax.